TV mooy suñu télé. la chaîne de la vérité. tasaare leen ko. sant sëñ Tuubaa lii lii daal day firnde ne daal yoonu sëriñ Tuubaa bi amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la am barki maam Cheikh Rafal mu mel ni kon eh, gàmm yi fi daan jot am ak bii eh, ndax am na wuute wuute na wuute na wuute na wuute na lan mooy ah, feebar beeg affaire noonu affaire demee nii moo lay wan ne ñun sëriñ Tuubaa rek ñor dara ñoruñu bu dee coronavirus dañuy rey tamit dañuy dee ndax sëriñ Tuubaa waaw yaa wax lii maa la wax lii ba tey eh, jàkkaarloog euh, maanaam Baye Fall yi ñu fësal seen yéene euh, ci gàmm gi Masalik ni mu mel tey Baye Fall bi nuyu nañu ñoo ngi lay dolli siyaar di la nuyu bu wér a wér bàyyi ngi ci jàmm ñoo ngi sant sëriñ Touba bu wér mel ni mbooloo mi nekk Masalik tey eh, ngir màggal guddi Seydina Muhammad ngi tàkku na mbooloo mi macha allah waaw mbooloo mi moom macha allah dañuy wane ne nii la rek Sénégal moom dëkkub jullit la ñun ñëpp gëmuñu ku dul Seydina Muhammad gëmuñu tamit ku dul Serigne Touba comme bis bu toll nii bu buñ ko wootee Masalik ñun ñëpp dañuy ñëw teew ngir dundal guddi gi rek màggal ko comme ni ko sëñ Tuubaa di waxee rek noonu lañ koy defee saa su nekk waaw. moo bëgg naa xam na ndax mbooloo mi mbooloo mi fi daan am ak mbooloo mi ndax benn la. ah mbiri mbiri Serigne Touba moo demee noonu amul tànk ginnaaw tànk kanam rek année bu jot day gën di yokk comme ni population bi di yokkee rek année bu jot noonu lay yokkee année bu jot rek bu ñëw rek day gën a bari incha allah. waaw ñu ko jaajëfal rek waaye ba tey ñu ngi taxaw ni si côté suñu côté Ndior beneen Baye Fall euh, Baye Fall bi sa mbégte tey. waaw ñu ngi ziar Fall. waaw di am mbégte bu baax. ndax euh, fi mu toll nii nekk guddi Mouhamed sallallahu dafa nekk guddi bu nekk da am droit nga màggal ko parce que Serigne Touba boo imaginé maanaam xas nañu bind yëpp si bi ci wooy kon tey bu guddi ñëwee rek. c'est normal boo ko jullit yëpp jóg maanaam màggal guddi yonent bi parce que Sëñ Tuubaa teg na ko foo xamante ne nii kenn tegu fa kon li ñu am di am ferte ci maanaam magal guddi gi loolu moo waral suñu taxawaay ci Masaalikul Jinaan tey jii. Sénégal maaleykum jërëjëf waaw salaamaaleykum ba tey ah, ñu ngi fii ci Massalikul Jinaan ci guddi gi xam ne moo di guddi Seydina Muhammad di ko waaye Reubeuss TV ñëw eh, tey fii nga xam ne moo di Massalik waaye tey ñu dajeeg yaay Fall yoo xam ne macha Allah tarkala mu mel ni eh, soxna Khady yow ñu ngi lay ziar bu baax a baax waaw kilifa gi ñuy jëloo ziar bu wér a wér di santaat bu baax a baax a baax sa mbégte bu baax a baax a baax ak suñu yaakaar Serigne Fall nga xam ne mu la yaakaar fii ak fañ jëm di ko di ma mbégte mi daal kontaan nañ di ñaan eh, al Muntaxa borom mbégte mu nekk ay junni junni màggal junni gàmmu yoo xamante ne dañ ko fiy feete ñaanal suñu mbokk yaay faal yi jógee ba Kër Massar sant ñëpp gërëm ñëpp kontaan nañ trop. mu mel ni mbooloo mi fi gis ni ragaloon nañ ne corona bi sax dina taxal mbooloo mu mbooloo mu toll nii du fi dajee. li kii waxoon rek suñ Cheikh Baye Góor la mu waxoon ragaluñ corona faale wuñ kenn ñun suñ Tuubaa ñu ñor fu mu nekk rek ña nga fa ragaluñ ko dara daal comme suñ mu taxaañ suñ kanam rek mooy masque bi ñu xam moo aar. <laughs> ba tey yaa fa dégg nga si ni mu ko waxee ci sànni. waaw comme ni ko soxna Khady waxee rek. waaw moom mooy jëriñ daara bi. mooy jëriñ daara waaw waaw mooy jëriñ daara bi asaabu jëndati. mbégte ma rek ndax ñun ñu bëgguñu lu Sëñ Tuubaa gëmuñu lu ci Talla Linguère. waaw. daara bi nu mu tudd. saabu jannati loolu nga yokk sa mbégte rek ci li soxna si wax waaw macha allah soxna xarit moom bu waxee ba pare duñ si bëgg a teg daara ndax moom moom tëj na kàddu gi ba noppi dund mbégte mi rek ba faw delloo siyaar góor yàlla bàyyi ngi am jàmm ngi santaat baax a baax sant sëriñ Abdou Karim baax a baax tey mu mel ni gis na masal tey moom dafa mel ni mbooloo mi fi nekk rek doy na waat bari na trop macha allah tarkala lu waral loolu waaw sant sëriñ Touba rek ñu lépp liggéey sëriñ Touba la ndax ñaari guddi yi mu defoon Ndakaaru mooy firndeel tey Masaalikul Jinaan ñu marqué lool ñun murit ñi ak ñun jullit ñëpp parce que Serigne Touba liggéeyal murit kese dafa liggéeyal kulli jullit képp kuy nooyi sax laay wax parce que boo nee jullit sax day mel ni da nga ciy bàyyi ñeneen mais lépp luy nooyi Serigne Touba liggéeyal kon nag ñun war nañu def lu delloo ko njukkal Serigne Touba ñoo defal loo xamante ni ndey ak baay sax defal ñu ko war na Serigne kon sant ko di dox ci ay ndigalam ba génn àdduna daal moom mooy. gis mbooloo mi takku mi nan jumaa ji masaaliku loolu la sama xel yi damaat te jëm jumaa yi masaaliku saa su ma gisee sama xel day delluwaat ci Touba kon sant Serigne Touba rek wax jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jaajëf ñu la jaajëfal bi macha am na solo macha allah tarkal salaamaaleykum mbokk yi comme ni ñu ko waxee rek saa su nekk rek gis nga euh, boobu ba léegi Reubeuss TV mi ngi def ay tournée di dem fu nekk Masalik waaw Médina waaye tey nag euh, ki ñu toogal ko duñ ko présenté kenn ndax ñëpp xam na àdduna ko mu koy def nag chaque année muy njógu afiya di woote macha allah tarkala euh, fii waaye gis mbooloo mu takku muy waaye duñ def lu tàll ko suñu micro nuyu ko ziar ko Baye Fall bi ñu ngi ziar. waaw jërëjëf Serigne Touba jaram maam Cheikh Ibra Fall est-ce que sëñ Afiya Falilou Youssou di bëggé fara ak ñi nga àndal euh, ne di ziar sama waa TV ndax man Rebeuss la dëkk ndax de Police muy rissis Malick si fa lañ juddoo fa lañ yaroo ci biir camp bi ay doomu alkaati lañ suñu ay xarit yu bari Rebeuss lañ dëkkoon ñu nekk benn groupe maa ngi nuyu waa Rebeuss yëpp euh, di leen dalal di leen wax ne li ngeen yaakaar ci waxtaan bi yàlla na ko yàlla ful lépp di aafiya mu melni ni euh, yombutoon ci jamono bo xamne corona bi ñëw na ñu bari sax ci doon ne kenn du gamu ay tay gis nga yalla def tawfeex ba ba li am masala tarkal la bu ñu ñëw dugg si bi sax gis nga pour ñu dugg sa problème ndax mbolam mu bari macha allah tarkal waaw legi euh, lo lo ci lan nga ma laacc ci lolu wa mani masala dama ne febar corona bi nga xamne ñepp ci doon ne kenn du woote masala yalla da taw weex ba manam dal euh, ñu woote gamu way gis na ne avant ñuy dugg fi sax mbooloo mu takku mi masala tarkal la ñëw waa waaw ah ama corona moom dafa ñëw sonol àdduna bi yàlla suturaal ñu màggal gi ñëw tombe ci baaxu Serigne Touba mu deñ ak mag yu baax yi ba tey ñuy tala mu def leneen dañuy ñaan rek yeneen dëkk itam mu jeex fa ba ñoom ñu dellu seen ay activité waaw macha allah barka la Ndiogou moo wote gàmmu eh, Ndiogou Afia Rebeuss TV ñëw. ñëw dékkale sunu micro bala ñu bi waxtaanee mbégte moomu. ah waaw affaire rek man moom man ci mbégte laay dox suba ngoon guddi waaw ah, keroog damay tooñ sama rakk yi may leen da ngeen may sélectionnel photo yu ma reetaanul comprends nga ñun ci mbégte rek la kon waa Reubeuss TV bu ñëwee dañ ciy gën a fier parce que ñun Médina Reubeuss dafa am lu daan bàkkee te xamuñ ne kenn gënu ñoo bëgg lu baax kon war nañ mëna dem ba am ay télé yu mag té non lay démé sax afiya rek euh, afiya euh, mu melni mbolo mu takku ni masala tarkalla woote ko est ce que yomb na waw yomb na yombul yombul ci bo jappé né yow njóogu ya tax nit ñi di ñew mais yomb na ci bo xamé né nit ñi bëgg nañ Touba jëmmi sëñ Tuubaa ñu bëgg a Ndiogou dañ ko bëgg rek maa leen sant bu baax maa sant ñi fi teew ñëpp ak ñi fi teewul billaahi maa ngi sant ñëpp te dama kontaan dégg naa lool te nit ñi saa su ne lii def fu ma nekk rek ñu ñëw sagal ma maa ngi maa ngi maa ngi sant ñëpp yàlla na ñëpp am afiya waaw. mu mel afiya googu ngay moo tax ba eh, Ndiogou moom bu rek. macha allah tarkala mbooloo mi daal day jigi dayoo. non affaire rek ba pare gars yi dañu xamante nag dañu bëggante mais dañu xamante te incha allah bu ñu tàmbalee am nañ ci yaakaar incha allah ne di nga gis ñu nag gars yi moom xamante nañ. mais jógu ci moment boo xamante ne nag dañuy waxtaan nag quoi ci moment boo xam ne corona bi dugg na euh, tey nga woote mbooloo mu toll nii est-ce que tey bu fekkoon ne tey yàlla dogal na corona mu fii est-ce que kon fii kenn dina fi xaj. waaw ah dafa gën a yokk de. dafa gën moom loolu ma jaaxal man. dafa gën a yokk de macha allah. lépp ci affaire ñun ñun du dañuy ñeme feebar wala ñu ragal ko su corona maam bi coronavirus amee di rey ay nit ci moment yooyu bu sëñ bi ne woon fekk leen ma Touba ñëpp dem. bu dara dara dara amul sëñ bi ne bu dara dara dara du yëngu wah ñun ci bëgg sëriñ bi la lañ nekk ñi ngi ñaan nak ni fi yalla dafay tawfé mu def ko ci yenen dëkk yi waaw ah, de yalla yalla leen yàlla yëkkatil affaire bi. gi ngay def ni ndax yag nga di woté waaw yag nañ di woté ci ndigalu sëñ Afia première année bi fi lañ tok ci ngoon gi rek euh, di fubal fubal ba massi bi jaar rek ñu na waaye nañ jamm noonu la dikkee ñu ne ah ñu ne waaw ngoon gi match bi jaare ñu neñ gàmmu ut ñu abal ñu benn bâche daal di jóg bâche boo xam ne après ngelaw bi da koy yóbbu mu dem rek nit ñi ñëw ñu ne abo ah, ne ah daf leen nag ñu dem tàggu sëñ bi sëñ Afia mu jox ñu ndigal loolu léegi ñaata at la jàppatuma ati nag jàppatuma ati ah jàppatuma ati bu ñëw rek gën a neex waaw ah, macha allah ah ah Afia gi la affaire ah gars yi affaire yi wër di njaboot jàmmay mbokkam alima sama doom ji afir, lay wër moo jóob affaire yow looloo affaire ah, wala bëggoo jare, da nga bëgg jaar ne afir, jaar ne jaar ne <laughs> affaire rek en tout cas ah bisimilah ñu bàyyi nga wéyal. waaw waaw euh, tey nga gis gis nañu seen it macha allah taarkalla ñoom Alima comme ni nga ko waxee sànq ba léegi njugul waral xale yi jigéen yi soxna yaay Fally quoi moom boo xam ah, ah. jigéen ñi nag samay xarit lañ man ñu samay fan sa ay jigéen lañ dañ koy wax sax ñu eh, jigéen ñi ah mais bu ñëwee góor ñi ñëw. non man moom am naa ci am naa ci firnde bu lee parce que. ñii xam naa yow kenn dégguñu ku filmé wuñ bu bu bu jigéen ñëwul doo ñëw. dëgg la jeex na. <laughs> mais secret bi nga xamante ni ñoom bu ñu ñëwee na yaay sama papa xam nga bëgg la daal. waaw samay doom lañ parce que jigéen bu jugee fee ñëw bëgg la. seytaane dafa bari pexe da koy jàppee ni sa doom ngir yërmande mën mën ci am nga xam ne bu defee faute sax seytaane du la yóbbu ci nga dàq ko waaw di leen mën a xajoo comme doom yal leen yàlla sàmm ku leen laal laal ma sama soppe yi ku leen laal laal ma luñ bëgg bëgg naa billaay wallaay afiya rek. waaw afiya ban euh, ban maanaam tey bu fekkee ne message booy lancé ci ci nu ñuy gàmmoo wala tey jii yow tey ñi woote gàmmu ban comportement lañ war a mel. waaw xam nga man du ma spécialiste ci gàmmu pour ne décortiquer ne nii lañ koy defee en tout cas man xam naa li may def guddi gàmmu màggal lu mënti am man dama koy def ngir sant ci sama sëriñ sëñ Afiya Falilu mi ma yar ci yoon bi ba may dund yonent bi ak sëriñ Touba. sëñ Afia laay sant moom moo xam sëñ Touba sëñ moo xam yonent bi waaw mais daal pour fi may tëjee ndax daa mel ni waxtu bee ngi jot message bi dama koy généraliser àdduna dafa am étape boo ko bëggee burle day compliqué muy waajur dañ fonk waajur yi nit day am ngërëmal waajur gannaaw ngërëmal waajur boo amee sa sëriñ nga liggéeyal ko ba am ngërëmam beneen biir yàlla dafa ne dafa bëgg doomu aadama te nit yëpp la wax bàyyiwul kenn dañuy dañu yéene nit ñi afiya ku la tooñ sax baal ko nee ko rek waaw afiya waaw ñëpp dund afiya ku nekk li mu war a am ala kulli xaal da koy am yàlla tuddoon na bu yàgg ñi waroon teew fii laay wallaay li nga war a am yàlla tudd na ko li alima war a am wala nabu wala xujja wala keneen yàlla tudd na ko nañ afiye rek nañ dund afiya rek waaw afiya rek comme nim ko waxe ñu dund afiya njogu afiya ma sha Allah taala comme nim ko waxe rek mom dafa bari ay soppé ndax lan manam ma sha Allah taala mu ci yaram ci mbaxam yaatu wayam bëgg nit ah nit niko nit ñi bëgg nit mom non la bëgg nit ñi kon nak mo waral bu woté ñepp koy wëysi way diko def lu jox la nga nga wax sa kaddu bu ci satal ku la neex gëreumal ku la neex wax lu la neex sant ñepp lu la neex waxal gëreum ñepp di ci jital serigne bara afiya waaw mu melni ménager beeg may wax ma ñew di sante Serigne Bara Afia sama Serigne yalla na fi yagate won ndax tamit mo ñu joxaan digal li dañ ko ne ndax sañ nañoo gamu mu ne gamu leen waaw kon yalla na fi yagate wër ah kon ñu ko waa Reubeuss civi dem ci biti Afia rek ak jëf <laughs> dege nga di profito nak ngeen may mako ma sante sama xarit tay sama ben euh, gaane bu baax ah ma par force ñaw yi bari na mais sama bos ngay sol muy may sa borom sant yàlla boutique dom day da ah. sa blanc ah mais naa fa yóbbu nga joxal ma jesner bu baax jaana ca may sa ah, yóbbu ma fa rek ñu af ñu dund Rebus TV moi suñu télé la chaîne de la vérité